Momar Seni Ndiaye nekk analyste politique mu mag alors euh, ci réew mi nekk boroom xam-xam bu kenn naataablewul te ñu koy faral di suivre ci euh, émission télévisuelle bu essentiel nest ci seen TV moom lañ seet si tey alors bëggoon waxtaan ak moom euh, ci li nga xam ne moo lëmbee réew mi doyen Seni ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen fay du baax di gërëm di nuyu ñi nga xam ne ñëpp ñooy liggéey ci seen télévision leen ñaanal ngeen màgg ba weesu. dayoo bi nga xam ni moom ngeen nekk nii ba ba ba weesu sax yi fi nekk ci télévision yi. président dafa dafa dansé le parenage mën nañu wax il a dansé ci parenage bi e les sénégalais ni ñu ko interprété diversement yow lan moo ci doon xalaat en tant que première institution xam nga mag muy xëy suba di fecc yaa xam ne la tax ngay fecc waaye yow mii xam naa ni jàng nga fable de la fontaine bi ñuy woowee la cigale et la fourmi jàng nga ko xam nga cigale maanaam xeetu picc la dafa fekk ci biir noor gi muy waye ko fecc di waye ko fecc di waye ko fecc boog boobu nag menentaan bi moom muy fourmi bi boobu moom ma ngay liggéey ma ngay dem di wuti di wuti xarmat di wut néegam fu mu dugg comme jamono temps bi neexoon na picc mi di way di fecc rek ba nga xamee nag léegi nawet ñëw na euh, kii bi nu mu teeti menentaan bi daw dugg ci néegam di di féexlu ci kooku ñëw ni ko fëgg ni ko may ma ma dugg mu ne ko ba nga doon la doon def ci nawet bi mu ne ko daan dama naan way di fecc mu ne kon mu ne ko wéyal di fecc nag daal di moom des ci biir donc moom nag ah comme muy fecc moo xam ndax muy fecc waaye nag ci na noor la ñu nekk nag ba su ñu demee ba ci nawet bi ba ci hiver bi mois de février ah bu dee wéy na di fecc ñu xam ne kon li muy fecc moo ko xamoon waaye nag bu ko feccee biti nag dina doy waat de kon nag fecc daal bàkku daal dem ci làmb ja bàkk jóge ci làmb ja moo ko gën a wóor.